je sais que exercice bi jafe noon ci parce que suñu njit yu bees yi dañu leen woowoon ca primature waxtaan bi may def ak Sénégal ndaje momu ñu len woowoon primature danaka moy soubassement bi mais ngeen baal ma rekk laata may dugg ci loolu tey jii la am 22 ans bi senegaal tàbbee ci musiba sooxuk bateau Joola njaboot yi ci ñàkk seeni doom ñu ngi dellu di leen massaw dellu di ñaanal way dawlu yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seen bakkan ci musiba boobu nga xam ne ci àdduna bokk na ci li ci gën a rëy ci wàllu géej lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ci doomi aadama seen bakkan des ci géej gi le Joola sénégalais yi waruñu ko fàtte waaye le Joola ñi jiite réew mi waruñu ko mës a mën a fàtte rawatina nag bisub tey bi di 26 septembre ñoom ñi jiite réew mi taamu bis boobu ngir tàmbali ci seen campagne électorale jëm ci élection législative yi ñu dëkk ma bisub tey bi man de bu ma nekkoon maire Ziguinchor lu ma jàpp danaa ko bàyyi takk sumay bagaas dem Ziguinchor ànd ak ñoom ci fàttaliku tiis bu ni mel njiit bu yittewoo jafe-jafey askanam yaakaar naa ne noonu lay def mais malheureusement boo yoree jikkoy kuy wut jikkoy kuy wut baaxul parce que lu muy wax du dëgg lu mu la wan du dëgg et foofu la ñu toll ak ñii nga xam ne ñoo yore Sénégal ci làmbaatu yore Sénégal ci cuune yore Sénégal ci naxaate parce que Ousmane Sonko ak ñamu dajale tey foofu ca primature lañu ñu fa wax sénégalais yi dugg na.